situation mm-hmm. yoo xam ni dañ koy aussi koy confondre mm-hmm. dañoo tëj frontière yëpp mm-hmm. donc képp ko xam ne dangay ngay déplacé wu mais France ñoom presque chaque semaine ñi ngi indi de ñoom seen avion am bon non dafa nag loolu ñu leeral ko waaw bi buy ñëw waaw dafay ñëw vide la kenn du ci nekk bu ñëwee dañuy jël si seeni doomu réew yi fi nekk. Sénégal aussi avion bi bu fi jógee. du am kenn. dafay dem jëli doomu Sénégal yi nekk France loolu loolu loolu. d'accord loolu mhm. loolu mooy li nekk. waaw. Mhm. maintenant. Mhm. ay sénégalais yu bloqué fii. am liggéey ci yeneen réew notamment Italie. gouvernement Sénégal ñaan gouvernement Italie. pour ñu nangu leen a dañoo tëj frontière yi parce que bu ñu tëjuloon frontière yi du jar ñaan ku yor sa kii da ngay neex bu la neexee nga def. Mhm. Mhm. gouvernement Italie maye ñu loolu. Mhm. mais avion bi bu demee dafay dem ànd ak yóbbu peut ay sénégalais mais buy ñëw day ñëw vide. ak du àndaale kenn. ñu waxtaan ak gouvernement italien pour sénégalais yi fa nekk. mën a ñëw te a ñëw te bëgg a ñëw. waaw ñu waxtaan ak ñoom. ñu may ñu kotaawu ay avion dañ leen dañ leen ni parce que aéroport dafa tëj. foog nga wax ban avion mooy ñëw ñaata nit a ciy nekk. ak kan moo ciy nekk. ban bës la ñëw. ñu njëkk ñu may ñett voyage yi dem. ministère des affaires étrangères du du jaay ay billets avion du ci du ci du duggul ci loolu. ñu dégg ni billet yi dafa cher ñu jooytuñu ko ñu dem wax ko président fekk yeneen trois avions dem ci diggante bi aussi amoon na ay intermédiaires yu ci dugg xam nga. Mhm. Euh, marché moom. Mhm. chaque fois quand c'est pas ouvert. Mhm. dafa am ñu bari ñu ciy profité. tout à fait. billet bi daan nañ ko jaaye mille am na sax ñu jëndee seen billet lu ëpp loolu en passant par des intermédiaires biñ ko yëgee ñu waxtaan ceeg président. président ne ñu sénégalais yooyu nga xam dañ fi nekk. di ñibbi war nañ leen a dimbali. fekk ñoom ñu ñaanoon ko. bi ñu ko ñaanee fii ci Sénégal dañ leen ne mënuñu leen dimbali. parce que aide diaspora ñu ngi koy fayee ji bitim réew kenn du ko fayee biir Sénégal mais nag ñoom bind woon nañ ci plateforme bi ñu ëpp ci ñoom. président ne léegi billet bi na ci Air Sénégal wàññi Air Sénégal ne moom mënu ci wàññi lu dul cent. ndax bu dul loolu dafay perte. président ne nañ jël en charge deux cent euros. nan lañ ko jëlee en charge ñi nga xam ne dañoo njëkk a dem jëndee woon seen billet neuf cent wala mille wala mille cent bu ñu demee ba Italie bu ñu demee ci ambassade ba génnee seen i justificatif ñu jox leen deux cent ñi nga xam ne nag ñu ngi fii mhm. demaguñu mhm. dañ leen jox fii deux cent yi de manière indirecte c'est-à-dire dañuy jël bi Air Sénégal fayal leen ci 200. d'accord moo tax ministère des affaires étrangères jox na Air Sénégal fi nekk millions. yoo xam ne ci la liggéey. d'accord nga baal ma bu ñu ko toppee dafay gudd. <laughs> Euh, il faut ñu aborder problème hajj bi. ma bàyyi la baal ma euh, parce que loolu na tey ay euh, sénégalais yoo xam ne mën nañu wax ni lii gulet la si ci seen pàttaliku te nekk na loo xam ne tam bëgg nañu mu leer parce que dégg nañu que ni Arabie Saoudite ubbi nañu màkk mais léegi leerul ba xam ujaaj yi fii mën nañ bàyyi ko Sénégal dem. def naa sax ci li ci mujj mooy nee nañu aj du am dañu ko jagleel ña nga xam ni ñoom ñoo fa nekk te loolu commissaire au pèlerinage euh, bëral na ko ci RFM bëral na ko li ci am kay mooy agence yi privé yi ak ñeneen ak ñeneen xëy na am na relation commerciale yu doxoon seen diggante ak ñi bëggoon a dem loolu est-ce que état am na ci taxawaay pour vraiment. Euh, bu ñuy reporter yooyu ba beneen at bi ak lan ngeen mu mujj déggoo réellement ak Arabie Saoudite ci aju bi. aju ren bi. Mhm. heureusement gouvernement Sénégal teel na ci jël ay matukaay parce que aj dañ koy préparer ci lu yàgg. Mhm. déjà au mois de mars la ñu gouvernement Arabie Saoudite saisir nee ñu umra duñ ko mën a organiser. Mhm. te ñu ngi ñaan bu benn euh, koo xam ni da ngay liggéey ci loolu nga jël xaalisu kenn ku mu mënti doon. Hmm. muy Arabie Saoudite bu fa kenn fay hôtel bu fa kenn loué oto. par conséquent nous en tant que gouvernement sénégalais nous avons aussi que fii war nañu suspendre opération yi ñu def une grande réunion c'était au mois de mars. Hmm. informé ci nekk ci secteur bi yëpp. décision bi nga xam ni gouvernement Arabie Saoudite jël na ko ñu nag euh, am euh, nekkoon ci loolu ba fan yi passé moo tugul une semaine ñu yónnee ñu këyit biral ni aj bi ren du am mm-hmm. ah donc loolu formalisé nañ ko wax nañ ko formalisé bind nañu gouvernement ah, Sénégal d'accord kon loolu leer na non du am mm-hmm. li ñuy def mooy dinañu invité junni nit ñoo xam ne ñu nga biir Arabie Saoudite doon ay étranger bu dul loolu seuls saoudiens yi ñoom ñooy aj ren parce que justement les mesures de distanciation xam nga ni ñu nekkee ni du mënuñu defee tawaaf ni ñu ni ñu toogee nii mhm. il faut que euh, donc ren aj aj du am maintenant c'est une situation très difficile mhm. pour tous les acteurs heureusement aussi teeloon nañ leen wax dëgg-dëgg te aussi communiqué woon nañ ci ouvertement pour que kenn bañ a jël xaalisu kenn maintenant le secteur mais xam ne jot nañu jël xaalisu kenn Euh, lan lan moo ciy taxawaayu état lan lañ ciy. ils l'ont fait sous la responsabilité parce que quand wax nañu publiquement mhm. yéen a ngi wane image bi nii depuis le mois de mars. ak bi ubbeegul fi mu nekk nii. kon dëgg-dëgg. kenn encaissé. kenn waratu woon a encaissé. Mhm. maintenant wax nañu seen i jafe-jafe. ñun bind nañu ministère bi nga xam ne moo yor wàllu tourisme parce que ce sont des agences. saisir leen. wax leen ni effectivement ci situation bi ñu toll nii dans le cadre de la force Covid war nañ leen a jàppale. jàppale boobu fan la toll. Euh, xamaguma ci dara nag parce que loolu du loo xam ne ñu ngi koy toppatoo ci ministère de des des affaires étrangères. mais montant bu war a dem ci ñoom aussi lan. exactement noonu ko aussi mënaguma ci am. d' accord xaw ma. d' accord ñaari yóbbante yi balaa ñuy jàll ci leneen. Mhm. suñu mbokk yi nekk ci Turquie. Mhm. vraiment dañu am seen mbokk bu mhm. wàññeeku. ñu ne euh, kilifay Turquie rob nañu ko. ci loo xam ne nii amuñu ci woon déggoo ak sénégalais fa nekk. xëy na boo ko yëguloon ñu yëgal la ko euh, service ministère des affaires mën koo toppatoo. sénégalais yi nekk Japon au nombre de cent 156 wax nañu ni passeport fi mu toll nii lu leen jafe la lool voilà loolu nag def naa bu aajul ton it xëy na service yi jërëjëf xam naa ni Turquie ambassade bi en tout cas remonté gu ñu information bu mel noonu. parce que ñun ak Turquie ay relation yu ratax la ñu am ay relation yu baax la ñu am maintenant bu amee ku fa wàññeeku autorité turque yi euh, denc ko xam naa ne loolu lu ñu war a gëstu la. Mhm. incha allah danañ ko seet suba. maintenant ci wàllu Japon effectivement ñaanoon nañ ko président de la République ci voyage mhm. ba am na mission ba nga xam ne waroon na jógee euh, Arabie Saoudite euh, ñëw au niveau du Japon pour mën leen defal seen i passeport mhm. malheureusement juróomi weer yi weesu yëpp. daanaka dem beeg dikk bii dañ ko dafa dafa taxaw. Mhm. donc mënuñu ci def leen mission bi ñu mën a mujjee yóbbu. il a fallu que ñu am autorisation au gouvernement Italie. Mhm. fi mu nekk nii yóbbu nañ fa mission bu dëgër parce que gouvernement Italie dafa nekk ci di régulariser. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk ba. donc Sénégal dafay jàppale ces populations président sant ñu. dañ fa yóbbu mission. ñu ngi foofu di defar ay passeport. après dinañ seet yenn réew yëpp ñu am problème. voilà monsieur le ministre bu boobu am nga message boo ko bëgg a conclure rek ma bàyyi la nga conclure ko après ñu ñu dem ci beneen. waaw diaspora bi c'est lu am importance le président wane na ko. Mhm. à travers député yi mu leen jox ak responsable yi nga xam ne am nañ ko ci institution bi aussi à travers contribution boo xam ne ñu ngi koy def ci réew mi. ñu ngi ci situation bu jafe dëgg dëgg président gestu na leen def na ci loo xamante ni mën nañu wax ni xëy na ci Afrique gisaguñu réew mu ko def jàpp nañ ni euh, kontaan nañ ci lool mais en tout cas c'est une partie de la population boo xam ni ñun ci suñu wàllu bopp ci liggéey bi nga xam ne dénk nañ ko jàngal nañu lu bëree bëree bari parce que bi ñu xoolee plateforme bi. xool ni ñu bindoo xam nañ ni bu ñu gënee jàppale et loolu la ñu président sant. dina gën a baax ci ñoom gën a baax ci réew mi. d' accord euh, monsieur le ñu dem ci beneen euh, beneen ponk mu aju ci wàllu politique mais dañuy def transition nag euh, ci ministère des affaires étrangères tàbbiwaale ci wàllu politique ministère bi bi ñu koy teg ci sa loxo dafa mel nii dafa xawoon am coow coow bi mooy li ñu doon dégg am na wala amul euh, du ministère boobu nga bëggoon yow affaire étrangères am na ñu jàpp ni da nga bëggoon économie ak finance nga dellu fa ñu boole ko mu nekk benn bloc loolu amul euh, ñu ne la kon jëlal économie nga ni bëgguma euh, coow boobu ni ñu ko déggee est-ce que amoon na ci wala amu ci woon ak itam ak it nga baal ma ak ministère bi ci boppam affaires étrangères ci boppam ndax nekk na ministère boo xam ni vraiment nekk nga fa li nga wax yëpp. dëgg dëgg demeewul noonu. bi ma président di yóbbu ministère des finances tàgguwu parce que ni sunu réew bindoo. président moom mooy nommé aux emplois civils et militaires. Ah. mais dina la consulter aussi. dafal ndànk maa ngi ñëw moom mooy xool fam mu la war a teg mu teg la fa. président de la république man personnellement à titre tout à fait personnel daf ma ji teraanga yu bëree bëree bare bëri yoo xam ni mënoon na doon émission damay fàttali bi muy uti réew mi bokk ma ci ñi ko jàppale dëgg-dëgg yàqaluma ko it mais jàppale ma ko dama nekk ci sama liggéeyu fonctionnaire di liggéey te jàppale woo ko ci suuf tam. non non non xam nga am na loo xam ne boo ko defeek nit ki. Mhm. c'est boo ko seqeek nit ki. Mhm. mën na la bañ a respecte mhm. mën na la bañ a wóolu. président xamoon naa ko bi mu nekkee premier ministre. parce que président sama digganteeg moom fi ma ko waroon xamee. xamee wu ma ko woon foofu xamee wu ko foofu. parce yàlla dafa dogal ñu daje université bokk pavillon. Ah. am ay xarit yu ñu bokk te xamante wuñu parce que am na ay juristes yi mu doon àndal ñooñu dañ daan ñëw ci suñu néeg tout le temps parce que ñu ko ma dëkk ñu ma dëkkaloon ay juristes lañu ñu doon ay xarit jaxaso mhm. xaw moon président mhm. nekk naa directeur des impôts avant may nekk directeur euh, général mu contresigné décret bi te xamante bi may nekk directeur général la yàlla dogal ma xamanteeg moom gisanteeg moom mhm. muy 2006 2007 mu jóge ci boppu primature dem assemblée. ak yi ci xew yëpp. on a gardé de très bonnes relations yu basées ci loyauté ak respect. mu am ci man cofeel lool. xeex réew mi ba jot réew mi bàyyi ma direction générale des impôts et des domaines pendant dix-huit mois. ma jàng ci lu bari. li ko yitteel mooy liggéey. Mhm. donc euh, c'est pas une question de de parti. Mhm. li ko yitteel mooy loyauté. Mhm. mais aussi à titre tout à fait personnel position de confiance la. parce que ku la wóoluwul du la bàyyi ci loolu. ma liggéey sans état d'âme. liggéey loyalement. ba septembre ni nga ko waxee léegi. mu xëy woo ma ma dama lay def. ministre de l'économie et des finances. Mhm. ma nangu ko liggéey ci la ma man mhm. ci ndigalam. Mhm. ci orientation yàlla def ci sutura bu yaatu. ndax ci diggante boobu la andi plan Sénégal émergent. au-delà de tout man dama gëm ni vision wu président Macky Sall. sur l'émergence mooy li nga xam ni Sénégal loolu la war a def pour doon un pays émergent en 2035 donc président defalu ko boppam c'est une vision partagée ma liggéey ci loolu d'accord nekk naa ministre des finances ñetti at xawma kartu APR xawma fu APR di daje xawma lu ñuy wax biir APR moom ci boppam mu ne mën naa ñëw jàppale ko sur le plan politique ma ko woon bañ pour deux raisons mhm. d'abord personnellement jiina ma teraanga deuxième raison je crois à sa vision politique et économique mhm. mayoon na ma sax fenêtre ci ni mu waxtaan ak man ma am mouvement ci ni ma ni ma ko comprendre mhm. ma ne ko déedéet dama ciy bokk ci biir da nga ciy tax bu baax taq ci rib <laughs> d'accord nekk ci li nga xam ni loolu la ma sant d'accord d'accord nga baal ma parce que bu ñu ko continuer noonu déet da may ma continuer euh, déet da nga may may ma continuer parce que da nga da nga wax loo xamante ni mais ma relancer benn nga continuer rek parce que dafay dem ci wax loo xam ne demeewul noonu il faut que ma préciser ko d'accord ñu dem ba mille 2016 2013 mhm. a dugg ci gouvernement mhm. ñu ne ma kaay nga ñëw dimbali ma ci politique ma dugg ci ci condition yi ma ci duggee nii. Mhm. yi ma la wax léegi. Mhm. ñu def référendum yàlla may ñu ndam on a participé comme tout le monde ci secteur bi nga xam ni fa la bëggoon ma liggéeyal ko muy Parcelles Assainies. 2017 mhm. xam nga kañ laa yëg ni dama bokk ci liste député yi. la veille maa ngi fàttaliku talaata la ñu ne jour boobu mooy clôture. li may nettali lu am solo kon dañ la repêché. déedéet repêché parce que jour moomu xam nga. donc naruñu ko woon dañ la repêché. déedéet du repêché. la veille nga ma wax non il a décidé dama bëgg dama bëgg a wane les relations que nous avons. waaw mais man it dafa am lu ma ci dégg ci relation non non non dama bëgg a wane dama bëgg a ah, wane. dama bëgg mm-hmm. xam nga boo ma bëggee juger. Mm-hmm. en tant que homme politique. Mm-hmm. tu vas te tromper totalement. parce que balaa ma nekk homme politique je suis d' abord un produit de l' administration fonctionnaire d' abord. am na lu mu def ci man am na lu ma ci jàng am na lu ma ci euh, nekk ba toll fi ma toll. Mhm. donc leneen lu ñëw da ciy tegu rek mais li fi nekkoon da nekk ba tey. Mhm. ce que je veux mooy du loo xam ne da koy laaj wala di ko xeex wala di ko uti moom jàppoon na ko yenn saa yi dina toog nit de ma yow dégg naa dañu def ci list yi mais li ma intéressé mooy moom miy jël décision te ma bokk ci parteem décision bi muy jël. mu jël décision boole ma ci liste bi mais non seulement dafa ma boole ci liste bi mais nee ma jiite liste bi moo tax je ne l'ai jamais revendiqué damay jiite liste non parce que je crois moi à un travail collégial un travail d'équipe ñun ñëpp ñoo ci nekkoon juróom-ñaar ñu nekkul ci liste bi sax defe naa ñu ëpp euh, disons mérite que ñun ñi ci nekkoon ñu jàll ci loolu ñu dem élection présidentielle ma def ci ministère bi. mais di nga ma ko résumé nag ah monsieur le nga baal ma. waaw ma dem ci ministère bi def fa juróomi at. Mhm. presque ba juróom benni at. président yóbbu ma ci beneen ministère muy ministère des affaires étrangères. Mhm. ministère bi nga xam ni moom mooy jëmmal réew mi à l'extérieur. waaw di ministère de souveraineté. d' accord mais où est le problème. d' accord xëy na bëggoo woon a sori extérieur bi xëy na moo la ci. mais je je je m' occupais déjà de coopération. waaw mais mais monsieur le ministre dafa insister.